asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di ñaan sunu borom di ñu defal jàmm fu ñu mën a nekk sunu xikma bi nag tey day wax ne ahaduhum qad yasalu anka li annaka tushaarikuhu huznahu wa axaru mutaatahu wa amalahu lakin afdalahum man yasalu anka li annahu nafsahu wa lasta maahu xakim bi am na ci gaay ngay am say gaay bopp koo xam ne dina la laajte li tax mu di la laajte mooy su ma sànni ci njàqare danga koy bokk moom am koo xam ne moom bu ma sànni ci bànneex danga koy ànd ak moom am koo xam ne seen liggéey bi ngeen di liggéey yéen ko daan ànd ñooñ ñëpp mën nañ laa laajte ndax yooyu noonu buñ la ca gisul mu ne waaye ki gën ci ñoom mooy ki nga xam ne li tax mu lay laajte mooy moom boo àndut ak moom boppam da koy réer maanaam dalaa def ni boppam ba bu la gisut day mel ni boppam la gisut daf laa def ne boppam benn la la jàppeek moo boppam nga xam ne bu la gisu sax day mel ni moom ci boppam gisatul boppam xam nga léeg nga gis koo xam danga naan ko xam nga ne man su ma àndul ak yow duma mën a lijjanti dara mu sotti léeg-léeg nit wax ko noonu rek pour tooñ nii farse waaye léeg nit wax ko te muy dëgg koo xam ne yàllaa la booleeg moom boole gu sell gu sincère koo xam ne lu bari boo ko dee def fileeg gisuloo ko mbaa nga dégg ko mu wax la xalaatam yow ci sa bopp yaadul xam li ngay def loolu moom nit ku ne bu fekkee ku baax nga war ngaa am ku mel noonu mu ne nag ñi ñi lay laaj ñépp buñ la gisul ndax nàngam ak nàngam ak nangam am na solo lool waaye ki ci gën mooy kooku noonu nga xam dalaa def ni boppam bu la gisul mel ni boppam a ko réer ku ne na xool ci ñi muy àndandool kan moo ci mel noonu ci moom mu gën koo jàppaat te dëgëral kóllëreem ak moom loolu la xikma bi indi woon tey ñu ngi sant ñëpp di gërëm tey wax ne rek bu kenn fàtte di julli ci yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ñooñom ak saxaabaam tey ndokkeel jullit yëpp nag ci weeru Sha'baan wu tedd wii teru te mi weer woo xam ne yonent bi muhammad nee na ci la ñuy yëkkati jëfi jaam ñim doon jëf ci at mi yëkkati ko jëme ko fa ko sunu boroom nara teg mu fay néeg boroom yàlla na yàlla yëkkati ñu sunuy jëf yu rafet te faral ñu sunuyu ñaaw te it du ñuy yëkkati suñuy jëf mu fekk ñu ñuy jëfaat lu rafet na ko yonent bi waxe woon mu woor ñu laaj ko ne li ngay woor ci Shaabaan bari na mu ne waaw ndax ci la ñuy yëkkati samay jëf te dama bëgg buñ may yëkkatil ay jëf fekk ma ma ne ci jëf ju baax yal na yàlla boole ñu dimbaleel boppam ñu ngi sant ñëpp di gërëm di jégglu wasalaamualeykum wa rahmatullah